kan wi ba jàmm ngeen yendoo ñun demoom moom la fanaane lu def faxu nag lu ay di jàmbat ah bisimilaay jàmm laa turbine yéen a kaay ci minbar gi la ko xëy nag daal di xutba ni gis nga fi mu toll nii nag ko gis ngeen kay la ñuy wax ndaxte ñoo ko sooke wante du dëgg ci ñoom ndax ko waa manko taxaw Sénégal la ñu waxoon waaye fi mu toll nii nag tasaaroo la ñu def kenn ku ci dekk daal di berma ni ko ab listam daal di dem parti démocratique sénégal ni day wattu Sénégal daañ fada ni ko yeesal Sénégal kay laa tal waaye initiative 2017 ak Khalifa Sall foo koy bàyyi vox populi ni ñu manko kase ndaxte nag boo xoolee bu ca biir kenn ku te nekk yaa nga doon tëgg linja di teg say galgal wala ay ndar képp yu nga xamante ni nag moom ngay fa séene daal di def ngir nag ko daal di jaaye mbong mu mel ni nag ay daaray njombar la foofu noonu ca manko ba waaye nag ma ne ko mayel bët yéene bi ndaxte ni nank politique gi Abdoulaye Wade ma ne ko la ca tekk nag ndaxte parti démocratique sénégalais sax de accusé nañ leen nag yëpp daal di am wor ga ca ñoom la jógee yéene bi daal xëy daal koy fësal ci xëtam mu njëkk ba ca biir leen baaraamu tuuma de waaye nag ki nga xamante ni moo di moo ji daan fada dafa jël ay dëbësam ko daal di dem am leneen loo xamante ni moom la daal gis booba la jamono nag Barthélémy Dias ma ngay wartu nag ma ne tey wax ne am na lu tolloog ma ne ko une dizaine de liste yu nga xamante ni Macky Sall comme moo nekk ca ginnaaw te nag moo leen dooleel te moo ko daal di financé mayel bët yéene bi njiitu leeral askan wi mu mel ni nag kuy dëggal loolu di wax saakub ceeb mënuñu koo jënd ñu ca bëri la quotidien yéen a kaay toftalu ca di ñu wax nañu ñu bi daal lu mu ci mënti doon ko ñett la xar ni tas ni tasar te boo ko xoolee ba ca biir defante bi nekkoon ci seen biir kenn ku ca nekk di roof pitingal wala boog ñii nga xamante ni ña ngay jëm a cabaxal lu mu ci mënti doon daal moo indi ma ne ko lii nga xamante ni moom la ñu gis enquête yéen kaay dellu di ko dëggal di ñu wax ni ñu daal ma ne ko tasaaroo la ñu gis de ndaxte parti démocratique sénégalais Idrissa Seck ak Malick Gakou la ñu jàpp ni daal ma ne ko ñoom nag fi mu toll nii dañu daal di wor maître Abdoulaye Wade la ñu daal di tànn ngir mu di wattu Sénégal ñu ni suñu góor gi yéene kaay bi daal di koy xamle ko Walf Quotidien dellu nag di ko dëggal daal di xamal ni ñu maître Abdoulaye Wade la ñu tànn mu di nag ne ko tête de liste ku yabu ni xalaas laas yéene kaay ni ñu déedéet maître Abdoulaye Wade moom ku ninki nank politique gi yéene kaay bi di Les Échos di ñu xamal ni ñu anniversaire ba niki démb la woon 91 ans la suñu góor gi daal di am téeméeri juróom-ñeent ca manqué yéene kaay bi di ñu xamal ni ñu ci la góor gi nag dellu si waat ngir nag ko wattu la wala wàllu Sénégal lu mu ci mënti doon daal yéene kaay bi di Les jiital mu dellu ca waat di ñu xamal ni ñu guerre des manko nag danañ ko daal di amal Dakar Times ci ñaari numéro ba mu dellu di ñu xamal ni échec la ñu gis ci protocole de Jeddah ndaxte Idrissa Seck maître Abdoulaye Wade daje woon nañ fa toog daal waxtaane bokk nag ci législative 2017 nga xamante ni ci juillet 30 lañ ko daal di fas amal noonee l'observateur yéene bi di ñu xamal ni ñu dem ca guerre ba kay la fësal la am ndaxte xamal ni ñu ginnaaw ba mu nee tas ni tasar yéenekaay bi ba tey di l'observateur dellu du ñu xamal ni ñu daal titre manko boobu kenn ku ca nekk taxaw na ca wetam ko di ko daal di réclamer wadd tête de coalition wattu déjà ñu ni onze sur la ligne de départ ñu ni vingt caution la ñu daal di déposé bu ca nekk quinze millions boobale jamono nag législative 2017 yi ba tey ci wàllu ko ñu toog ci donkasigi gi donkasigi mu ni collège électoral bi Cheikh Kanté la def directeur campagne Benno Bokk Yaakaar ñu ni forte mobilisation ndaxte nag Cheikh dina ko matate dina ko mën ndaxte dina mobiliser teg ci doon nag ma ne ko dana daal di financer militant yi direct info ni ñu dawul coow ko législatif 2017 yi mu xëy ndaat cay teg Mimi Touré Moustapha Diop Cheikh Kanté teg ca Amadou Ba Oumar Youm ak kan mu ne Birima Mangara loolu mooy top 6 bi nga xamante ni moom la mag yi yéenekaay bi daal di xëy daal di koy teg l'évidence yéenekaay ni ñu boo xoolee sax ci gouvernement bi dafa am ñu xarañ nag ak ñu xarañu ñu aay ak ñu aayul ñu efficace ak ñu efficaceul ci gouvernement bi mu ni Matar Ba de moo gën a efficace kii di mari tew bi sampu laaj la ca def de la solo yéene kaay xëy dañu xamal ni ñu déggoon ngeen fi nag coow li nga xamante ni moo di lan ñàkk réactif ci centre national transfusion sanguine bul jëm nag ci wàllu deret yi nga xamante ak ma ne ko jëmtukaay ya koy toppatoo ministère bi nga xam ne moom lañu dénk wàllu santé nag génn nañu ab communiqué daal wedd loolee ba mu set wecc di xam ne nag dara amu ca stade yéene kaay stade bi la ñuy daal di jàll mu ñëw nekk ci tàggat yaram dañu waxal ni ñu nag karamboj défenseur central suñu yi xamle nañu daal gagné contre Ouganda ak toxal onze lions yi nga xamante nag ñoom lañ doon xaar ci galo bi ni démb ca Saly ñoom ñëpp teew nañu suñu lamb yéene kaay ñëw ci Jibril Seck directeur INSEPS e moom nag professeur en sport de combat la nee moom moo war a jëli kan mu di bombardier yéene bi xëy daal koy fësal pakala am na mérite cinq avertissement nag lañ ko daal di daane bi daal koy xamal waaye booba la jamono nag mu nga ñëw ci blessure Lac Rose suñu ñu daal di xamante ni am na yàq taan ci waat mineur bu nga xamante ni am na juróom-ñeenti at yéene kaay bi dellu di ñu xamal ni ñu dee boo ko xoolee sax ko def katub ñaaw tëf bi ko da ko def awante ko benn ñaar ñett ba juróom waaye nag yéene bi di ñu xamal ni ñu sax de boo ko xoolee ci ab cousinam la ko def teg ci ko ca toilette ya nekk ca kër ga la ko doon defee yooyu jëf ju ñaaw noonee nag ma ne ko yéene kaay bi daal di xëy daal di koy fësal ni ñu nag ca rue 9 angle 12 ca Médina la mbir mi daal di xewee yéene bi daal di dellu nag di ñu xamal ni ñu boo sukkandikoo ci mbir mi def ñaw ñaaw tëf ba ma ngay xamle ni tut tànk juróom-ñeenti at boobu la mënta muñ wala jafe na loolu ci moom mu muñ ca fa daal di jàllee nag toppatoo leneen loo xamante ni soxna Njawar yaa ngi ko doon wax ni ki démb ni euh, koor gi foog ñu noppal ci làmb ci xanaa rek kon saison bi ñu fësee ne koo tëjee diggante yow mii Maam Njawar Diallo ak Ami Maquilleuse ñu yéene ñëpp jàmm ndax li ñu war a wax a bari wékk ko kenn ngëpp na ko ñëpp coom as lëf ci yéene kaay jaa ngeen jëf